waaw ñagas deux moo ñu woon ginnaaw ndeysaan ñaari xale yaa diggéey wi diggante Hercule 2 ak ñagas ñagas ak Hercule ñagas def na huit moom ñagas déggagul muñal ndaanaan la bërekat la waaye Hercule def na mais tamit ndaanaan la ndaanaan fatlin la bërekat la daa nekk ay jafe-jafe rek la waaye nee naa la ki déggut muñal at ki dégg muñal ba sonn mun ñoo bokk mais ki at ñagas deux Idi léegi xale yi naruñu la faa yàggal de ñaar ñii. déedéet. léegi ñu libéré la Idi. léegi ñu yeeweeg man taxali koog man. ndeysaan xale yaa ngi noonu ci digg. ndeysaan xale yaa digg oh ñagas a ngay dem. ñagas a ngay dem. ñagas cokkaat eh, na Hercule fayu na. Hercule repoussé na ko. song eh, na ko ba dóorum daan doom. bëre bi lay recessé mais. waaw eh, Hercule xeex ko arrangé. Hercule xeex ko arrangé. hey ñagas day xeex day bëre xoolal ni muy songee. la muy song ba wóor na. oh ñagas Hercule. eh ba Hercule nga dóor gos bi. na. ñagas ñu xool am na lu xew ñu xool. ñu xool lu xew. ñagas tey am na client de. boo du yàqale. tey am na client naar. boo du yàqale. boo xoolee. oho. am na ginnaaw boo du yàqale. ñagas am na. waaw waxuma loolu de. si botere boo joobi la moo seen yoon si ñagas. a ah, man de xaw ma lu leen ñagas def waaye moom. ah li booy tamit booy yëppal sikki nañ de. war nañ koo lijjanti de. waaw war nañ kaa lijjanti tamit. ñagas Hercule idi ñagas ak Hercule mais ñagas ñagas réer na sànq ci bërëb bi de. laa la xeex baa tax. une deux bi la mais ñagas gardam bi des na de bu baax waxoon na ko ne dama la duma arbitre suuf la waat na boo xoolee Hercule bëggul bëggul sa songoo jàppante ak moom xeex bee ko moo tax ma ngay xeex moom. waaye ñaka jëm mbëru mbapat la day seet si bëri bi. ndeysaan wax nga dëgg Idi. ndeysaan. ñagas Hercule. ñagas de Hercule. ñaari xale yi ba tey ñagas moo ñu wan ginnaaw. waaye Hercule lañ jàkkaar lool. oh doomu Bawol bi bi doomu Jokalante bi. ndeysaan borom 22 villages yi. hey ñagas dugg na ci gàddu bi door. waaye Hercule ñagas bu leen la coppet mu réer. Eh. hey naka la amul amagul de. hey ñaari xale yi. ñaari xale yi bi jaar yoon nag. xeexu mbedd la. xeexu la ñuy def ku ci remise nga dem. ku ci buub seen mbokk mais ma xamal la leen Hercule mu ngi dóor dóor boo xam ne ñagas bu ne coppet tànk bi làmb ji jeex. moo tax ma ne kuñ ci mbuub. say mbokk la nga la ñibbi. Oh, ñagas Hercule. ndeysaan. ñagas am na combat bu metti am na client bu mu dul ñagas combat bu metti la am tey. laa ilaaha illallah. waaye Hercule ndeysaan daanaan la. ndeysaan doom ak bawol gi. ndeysaan. ndeysaan Hercule a ngi noonu. diggante ñagas Hercule. ñagas deux at Hercule. Hercule moo dëkk conki siin mbaru joolaa yi la. waaw mbaru joolaa yi mbaɗum kasumay mbaɗu kasumay kasumay kep sumay sumay kep suboolo am na am na beneen bi ñuy wax dañuy fàttali katu bo laay laay ne katu boolo waaw waaw si ndeey loolu miin naa ko maa ngi nuyu Bakary Sagna de sa yaram lako lako lako lako naar lako lako lako lako lako lako mooy toogal ndeysaan ndeysaan boo jóob a la ko mooy toogal. sangal seen ñoom ñaar ñakas de. mais ñakas mi mais Hercule xeex la indi tey. ñakas mi Hercule bëggut a jàppante ak moom de. xalaatu ko. jël na coup jël na coup. ndax Hercule daa war a taxaw. non eh. ñakas naa bu la door ñakas pare. doon daan la tey jekkul. waaw booy ñëw moom lu seen yoon. waa kat joo joo lu seen waa lu seen yoon. lu seen waa Hercule mi. waa kat joo joo lu seen yoon. Hercule mi daa soxla woon de. Hercule mi daa mere woon daa soxla woon daa mere woon. waaye Hercule mi. waxoon na ma ko ñoom dama ko duma mu tëdd. ay waay ñagas tey nekkul. laa ilaaha illallah. lamba ngi nii tey mooy neuvième combat am. ndeysaan waroon na signé neuvième victoire am. mu mu marqué. dégg nga xale yi ñu ngi naan ko jóg sama morom.